te bu ñu gis la dem bi ñu demee kër Eumeu Sène euh, dékk la micro da nga ne waa Pikinois comme ni ñuy def euh, lu mel Eumeu Sène war naa bëre ko dékk micro mu ne euh, que le meilleur gagne lu lu waral loolu. waa que le meilleur bi booy ñaar defaraat na ko ba mu baax ba mu rafet ma ko siy félicité bu baax a baax a baax suñu waajur la papam suñu papa la dégool suñu papa la dégool la ak benn mbër du tudd mbër boobu. non mbër moom même boo ko tuddul tamit xam nañ ko. non ci ngay tudd turam quoi parce que wax dëgg yàlla fu mu ma fekk daf may jox sama cër ba mu mot dégg nga lu xew digganteem ak Eumeu Sène man du ma ko wax sama yoon nekku si. mais tey bataille psychologique bi nga xamante ni defoon na ko moom dafa mel dafa feeñ ci Pikine. kan la de guerre. waaw doo ko tudd mais dinaa ko tudd loolu du bataille psychologique. loolu bataille seytaane la bataille psychologique dafa am ak bataille seytaane bataille tas mbokk la dégg nga. waxoon naa ko fii ci jardin mi lañ ma jël yaa ngi may dégg sa lu ma doon kaas di génn si internet yëpp di dal si la de guerre tey moo jural lii waaw booy ñaa daal effacé na loolu won na ni kenn mënumaa boole ak Eumeu Sène ñëw na ci open press bi ñëw na ci làmb ji ñëw taxawu magam mais waxuma ci mag yu mbër yu mag yi de mbër yu ndaw yi laa wax nekk Pikine fukki écurie ak juróom gisoo ci kenn kon Pikinois dafa des ni daan mobiliser wu. waaw moo tax ma ne man bu benn mbër bu ndaw ñëwati waxuma mbër bu ndaw ñëwati de sama journée yi may tëgg si denk rent DKR mbëru Pikine génne naa lañu si. lu tax a génne leen ci Pape Sarr tamit waaw man maa ngi tëgg làmb dëkk li ma def Pikine kenn da ko fi def ken du ko fi def. damay demanteeg ñoom nag di jaayanteeg moom rent DKR bi ma bokk yor licence promoteur di tëgg làmb bu benn mbër buy takk ngemb yor licence pikin du dugg sama journée boo xamante ne gisuma la ci open press u Eumeu Sène ku dul Ziza ci mbër bu ndaw bépp mbër bu ndaw bu bëgg combat demal ci beneen promoteur waaye man Pape Sarr bokk ci rent DKR gisuma la ci open press u pikin suba bu Ama Baldé di defaat open press gisuma ci mbëru pikin benn mbër du bokk sama journée. mais tamit mbëri mag yi booy ñaa lañ gis tamit. waaw mais mais waaw. waaw non gis naa Zil waaw gis naa Jules Balde wax dëgg yàlla gis naa Pokola Pokola démb sarax yu bëri moo ñu ko doon def loo. mais ba léegi ay Pokola fa la dëgg mais Pape ba léegi ay mbëri ndaw parce que tey nit mënu ma wax loo erreur te yow mënoo ma wax loo erreur. Oh, non déglu ma rek moo tax yenn question yi yenn may laaj mun naa la si tontu de du mu si dul xuus yaa ngi may dégg gis que gis nga man su ma bëggoon damay tudd Ama tudd Jules Balde tudd Eumeu Sène tudd papa yi mbër yi mais du ma ko def de parce que wanuñu ma ko defuñu ma ko ñëpp xam nañ ni Pape Sarr boo ko waxee ci une minute balaa ngay dellu ci ginnaaw ma tontu la du dëgg man li may dugal sama biir kër ak di yóbbu samay njaboot ñuy dugal du benn mbër moo ma koy jox xam nga laa mën ci ñoom ñu am ko maa ma sonnal leen ñu saaga leen ci internet ma tontul leen. di xeex ak ñoom dëggoo bi ma ci sonn nit ñi ay nawetaan lañu xam cosaan cité daagu daan gelawaar bokku jëf cité police loolu la doon tal li ma tal nii ñoom taluñu ko woon dañ ma ci fekk si dégg nga ëmma seenee ëmma seen ama yee yóbbu ma si làmb de dugalu ma ci làmb de. déedéet boobu ñoom dañoo takk ngem ay yuuxu nii ay riir dugalu ma ci làmb de su ma riir dugaloon ci làmb mbër bu daanu pikin ma bàyyi la. man saa yoo daaloon si laa lay gën a ñuuxu man noonu laa bëgg nit ñu di doxee noonu laa bëgg Sénégal Pikine waaye di ko doxalee dama ne la mbëru pikin ma waxaat ko maa ngi bokk ci rent DKR Sénégal yëpp xam nañu tëgg naa quatre journée ren te journée yu ëpp yu ëpp coow à part bu petit bi petit daal moo ñu moo feesal stade bi mooy jinne arène nationale waaye Ibamar petit production moo koy ñaanal moo mook euh, Ibu Jimbo ñoom it maa ngi seen ginnaaw mais dama ne la bépp mbër mbër yi may wax nag Pokola Balde bokku si ak ak Ziza Pokola Balde laa si génne ak Ziza mais man Pape Sarr képp ku ci yoroon sama numéro bugg combat na nga wër beneen promoteur waaw maa ko wax nag day leer parce que man cent pour cent mi laa bëgg. alors mais loolu soo gisee dama may bàyyi ma eggali soo gisee nag ma def déclaration bi dama bëgg ni ñuy taxawoo yeneen mbër yi ñu koy taxawoo Ama Baldé di ko taxawoo bool ñaa di ko taxawoo Eumeu Sène. li may wax ñoo maanaam ah, mobilisation bi nga xamante ne waa Pikine war na ko dafa des. yow mobilisation wu stade nanguma stade man li may kaas mooy open press stade Pikine waaye ñëw nañu. promoteur bi daa war a wax ak bombardier supporter bombardier yi yéen a ngi yore image yi seetaan leen ngeen génne fu Eumeu Sène nekk ak fu bombardier nekk dégg du dëgg. mais aussi dañoo gisoon euh, open presse Eumeu Sène bi bu ñëwee stade di la sees bu la dekkee micro da nga ne euh, jeex na dootoo ànd ak beneen mbër combat bi moo nekk sa dernière bi ngay ànd ak mbër ñu gis ne euh, Eumeu Sène daan na dem Bombardier aussi amaan na combat moo ko Balla Gaye est ce que pare waan nga pour ànd ak rek Eumeu gunge ko. waa pare naa pour yóbbu ko ci samay nit man xam naa fu ma man Birane Ndour du ma gàntul dara Kéba Kanté du ma gàntul dara. Aziz du ma gàntul dara Ibu Belgique ak sama tubaab bi curku curku ak soxnam duñ ma gàntul dara sa làmb boo ko amee sama digganteeg yàlla laa la wax li ma promoteur bi di fay mun naa la ko lijjantil billahi wal kitaabi mais maa bàyyi loolu uutal sama doom téléphone bu baax bu am Wave ak Orange Money sa doom Cheikh Fall sama doom dam ko uutal téléphone bu baax mu am Wave ak Orange Money yéen ñi ma doon jàppale ci mbër yi pour may jàppale mbër yi sama doom am na wéef am na orange money soo leen di dimbali ngeen dimbali sama seex bii parce que tamit ba bëgg naa bu ma fi jógee ñu ne Pape Sarr li mu doon sonn ci mbë ci mbër yi ah tey jëriñ na doomam man xam naa ne bu ma demee ah waaw sama doom kenn du ko lijjanti man nag dama jóg pour lijjanti sama doom ji parce que instant yi nag dafa jot ma gérer sama njaboot comme defar naa ba sonn munul defaru damay jóg bis bu ñu defaraatoo nekk nekk benn ma jóg jàppale leen ñu nekk benn. kon nekk ñu benn. déedéet déedéet. samay nekk ñu benn. mais est-ce que pare nañ laa bu ama seen bëre ak euh, di dem di bëri ji nga àndaat ak moom comme ni nga koy kër la baat bi du ma fi passé. mais xam naa ne du wéet ci combat bi. parce que tey dinaa dem këram dinaa dugg fi ma doon dugg dinaa dem sëriñ yi ma doon dem dinaa dem ci autorité yi ma doon dem ñu jàppale ko waaye arène nationale laa bàyyi ànd ak mbaru Pikine. loolu giñ naa ko déggool ma nit ñi nee nañu. vidéo yi ñu ngi ko denc. gars yi la yóbbu vaar de gars yi. dama ne la nee nañu vidéo yi ñu ngi ko denc. vidéo yooyu dina maxe seen téléphone bi barki yàlla ñoom xanaa xamuñu ma damaa bàyyi nit vingt cinq ans man ku ma waxoon dinaa tàggoog baabooy nit dina ko gëm ah fi ma jaar ak moom jaaruma faak Ama Baldé jaaruma faak Eumeu Sène te tey mu ngi nii jeexul maa moom lu ma mënul bàyyi daa am. man julli ak jaamu yàlla rek laa mënul bàyyi ak ñi fi nekk ñoom sëriñ Touba ak maam El Hadj Malick ah ñooñu laa mënul mais lu nekk lu ma bëgg bàyyi mun naa ko bàyyi bàyyi naa waxuma bàyyi naa dem làmb de bàyyi naa ànd ak mbëru pikin di la gunge bàyyi naa ko. alors mi ngi noonu yaakaar naa ne ah, lu ñu amoon ci ay minutes jeex na ah, duñ defee lu jox Pape Sarr mu tàggatoo ak mbokk internet yi doon seetaan Pape Sarr la ngay tàggatoo. waaw maa ngi nuyu sama buur géwél bii taxaw. waaw kii ku ñàkk ki ñaan la di nuyu sama rakk ji saxraan mooy jaay boos yu neex nag mooy suñu artiste bi xam nga kuti kuti mbow mbow daa woo seedaale affaire yooyu xaju waaw kuti kuti mbow mbow mu ngi nii xam nga fii daa bëri star di di nuyu sama international bala di tagaa waaw kooku moom kii moom tôt ou tard di ko dégg Marseille wala Paris waaw di nuyu waa Pikine yëpp di nuyu Siga Riga bu baax a baax a baax a baax di nuyu nag population Pikine yëpp di Père Bourkhane Père Bourkhane Abdou baaxum maa ngi leen di jaajëfeel dégg di ñaanal équipe bi AS Pikine dégg nga Sénégal tamit ñu ngi koy ñaanal ndam yàlla may ñu ndam ñu dóor Tunisie 3-0. Euh, Pape Sarr Égypte la. Eh, juum maa ngi ñaanal Égypte combat bi moo neex combat bi la. man pour man bi ma lay wax nii pour man senegal fubalul. non day fubal suba nag. ma ci xam man lii nii ba groupe nit bii moo ma sololoon. li may tëjee mooy maa ngi félicité Bombardier di ko ñaanal mbëri Sénégal yëpp moo si gën a yaru Bombardier mbëru senegal yi laa la wax Bombardier moo ci gën a yaru maa ngi koy ñaanal bu amatee komba te du waa Pikine yàlla na ko yàlla may ndam Gaston. Bombardier utalaat ko combat parce que champion bu mag la maa ngi koy jaajëbal di ko jéggalu yàlla dimbali na ma ba amul benn waxtu ñagas bu ma wax Bombardier. mais dem doon sóoraale. waaw waaw dañ may sóoraale boo ma sóoraalewul xam man rek bul takk sa galaaj ma gunge la rek nekk sa ginnaaw bul takk. dem boo ma doon sóoraale. ma ne la maam Sarr sa wet bul takk gàllaaj billaahi damay da tàggali koog sama xel. Pape Sarr nii moo nekk nit mais biir stade mu am mbërëm day dof damay dof loolu moom wax dëgg yàlla yàlla moom ma ko bindee bu ma ànd ak Eumeu Sène wala mbëru Pikine ma nekk sa ginaaw damay tàggale ko sama xel waaw parce que ndam rek laa gis maa ngi gërëm nag ñi doon ñaan ci combat bi yëpp.